بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على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 والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن رحمة من ربك إنه هو السميع العليم يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل صلاة يا من تعالى لي قد مددا قد جوارحي إلى الأعمال الصالحات مطل الآمال قلبي ينمي حير واللسان تنحله الأذكار أسكار والحسان قلبي ينمي الغير واللسان تنحله الأسكار والحسان أنساني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا barke borom Tuba gaa yi ñu ngi leen di nuyu ci gën gaa rafetu nuyoo di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu su ma déggul fay gi damay bàyyi nuyoo gi day sunna fay gi di farata ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa ci xeeti cant yi am yépp nga xam ni yépp kenn moo ko yeyoo muy sunu boroom subhanahu wa taala nga xam ni buñ ko doon lim du fi jeex waaye sant gi lenn rek mat na cee seede muy fekke gi nu fekkewaat bés bi ñun ñépp xam nañu kenn koo xam ni daaw ci heure bii mi ngi doon noyyi di dund ren mu fekk barzaq yaafus yóbbu ko yam jàmbaar bawunu fi kenn la soob sunug des fi kenn la soog seenug dem muy boroom innama amruhu ida arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun damay faral di wax ni nit ki war na xam ni lu mu bëgg bëgg mu sotti moom nit ki day jox dog ci dox ci ba mu sotti suñ boroom bu bëggee mu sotti danaan sottil mu sotti du ci dox wax la ciy def sottil mu sotti suñ boroom moom moo tawféexal univers bi moo taw féexal adduna bi moo taw féexal nit ñi benn jaamam di sang ci ñëpp muy sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam it bu ko déggul damay bàyyi ok waaye yent bi daa jara màggal waay sëñ tubaa mbindéef gu toll na sëñ tubaa ku mu doon sa xaadim jaroo màggalam sëñ tubaa ku mu doon sa jëwriñ jaroo màggal ba pare ñun ñi ñëpp dafa am teranga gunu suñu borom defal te kenn tax muy Seyduna Muhammad ndax ñun ñëpp jàng nañ ko wala xadd karram na bani aadama waxamal xamal naahum fil barri wal baxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirim mimman xalaqna tafdila li tax nga xam ne suñ borom gi mu defal nit yamu ci wa razaqnaahum min altayibaati wërsëgal ka ba nit ki mën a xewaloo lu ne waaye wa faddalnaahum ala kathirim mi man xalaq naa taf diilaa mu gënal ko ci lu baree bare baree bare ci mbindeef yi xam nga lan lan mooy tax nit ki privilège yooyu yëpp suñu boroom dikk lan mooy tax nit ki mën ko am muy topp Sayyiduna Muhammad tey nag toppee la waxtaan waa toppee <laughs> waaye nag teranga googu yëpp ñun buñ ci mënee jot kenn lan koy njukkalee kenn lan koy jaajëfalee kenn lan koy sargale kenn lan koy mooy moom nga xam ni mooy sunu tawféex muy Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul lu nu mën a am mooma amul moroom laa bëgg a dégg ok buñ ko defee léegi ñu jubóole <laughs> waaye mu am buntam bi nga xam ni di xutbu bu mag a mag ki nga xam ni ni sëñ tubaa def yonant bi la def sëñ tubaa ki nga xam ni sëñ tubaa amoon na tawféex yi suñ boroom defoon ci moom yépp waaye nit ñi mën woon jariñu ci moom ndax mot de passe bi moo ñëwutoon muy Cheikh Ibrahima Fall Lamp ci noonu maa ngi nuyu soxna yi ci gën gaa rafeti nuyoo soxna yi nuyu naa leen dégg nga un million de fois nuyu naa leen de saabaa góor yàlla yi maa ngi leen di séddale benn nuyoo demaguma ku mu neex nga jël ku mu neexul nga delloo ma neex na leenam ok dafa am loo xam ni dafa am loolu mooy garantie yoonu murit loolu mooy tawféexu yoonu murit loolu mooy particularité yoonu murit muy Cheikh Ibrahima Fallam wax na ni tuuti kon mu dem fekk sëriñ bi lëmbiram ba kenn du mos ci baatinam lu dul ca bis ba nuy texe maanaam Cheikh Ibra bu ñëwutoon kenn du mos dara ci sëñ Tuubaa lu dul yawmal xiyaam Cheikh Ibra moo nettali Cheikh Moussa Ka dikkam kër sëñ Tuubaa Cheikh Moussa Ka mës nay xibaar ak jébbaloom ba wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe ak sunuy pexe ñun du pexe Cheikh kese de ak sunuy pexe ñun loolu dafa am sew-sew gu ci nee dama koy faral di wax Cheikh Ibra gisagul sëñ Tuubaa laa wax àgg ci yàlla ba yàlla ni ko gars yi Cheikh du gone de giseegul ak sëñ Tuubaa laa wax te waxoon naa la diggante bi ngay natt diggante sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra moom ngay natt ci diggante Seyduna Muhammad ak sëñ Tuubaa xam nga lan moo tax la Allahu alallaahi bila la taxarrurin wa umri yi taxabbala sëñ moo wax ni yàlla tegtal na ma yàlla te dafa am benn wax jum ci wax bila taxarrurin gars yi lu jara lu jara loolooy loolooy loolooy wax ji mooy amul waru gis nga dafa am benn nitu yàlla dafa mës di jaamu yàlla ba iblis feeñu ko ni ko bul jaamooti yàlla lépp wàcc na la nit yàlla bi ni aoudu billahi min asheytaani rajim iblis xaxataay ni ko noo xamee ni man la mu ni ko yàlla buy wax sama lépp a koy dégg te wax ji ngay wax sama nopp kesee koy dégg kon iblis mën na la bàyyi ngay jëf waaye waru galee xaar ndax du la du la may nga jariñu sëñ yàlla bi mu may tegtal yàlla benn waru amu ci te dafa am wax ji noo koy arrangé jaawartullah bi kitaabihi ila duxuliyal jannatahu la wax dëkkaale naag sunu boroom ci téeréem bi ci waxam bi di alquranul karim ñu ni sëñ tubaa seen dëkkaale gi fan lay mu ni ilaa duxuliyal jannatahu sëñ tubaa day tàbbi aljana ak ñun mu di de danay tàbbi aljana ku mu neex dana am ku mu naqat dana am qulubu jumlati alladina aflahu liyatawajjah wa rabbil muslihu loolu loolu loolu loolu ñun murid yi sax daf ci ëpp waaye bu sa xool sëñ tubaa ne ci donte yéeféer nga aljana nga jëm loolu am na ba noppi sëñ ci tàmbali mu ni faaraqtu iblisa wa jamia al mafasidi gis nga mën nga tàqoog tàqoog iblis ngeen ko waaye Iblis dalay wax ni dem na waaye demul fekk am na ay jëf yu sew yu mu la bàyyi dalay wax ni dem nga pour nga jàpp ni dem na waaye am na ay yu sew a sew yu mu la bàyyeel Sëñ Tuubaa ni tàqalikoo ak Iblis at lépp loo xam ni njabootam la ni wa bismillaahi rahmaani rahim ñu ni lan moo ci topp mu ni laazamtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa jamia al masaliha ak naak sayduna muhammad ak képp ku yiw moo tax da ngay xam ni képp ku yiw alalu sëñ tubaa la na ko xam moo tax Cheikh Abdul Karim Samba Diarra Mbaye waxoon ni la sama woote bii ku xëy mu tabbi ab noppam tamuy tànkam lu def boppam ku doy xolam ba mbàllakul ba xam nee na woote bi yow boo jàppee ni bokk ci bokkoo ci sa xol bi lakk na ba noppi ñu ni woote bi lan la mu ni ku di muqaddam laa di woo ku di alxaaji maa la woo boolee ki seex ku ma ci woo nanga ni labayka ma mbana am di leen yëgal kii ma fi gis ki ma fi gis ku ko fi gis te àndul ak moom ku ko fi gis gënu fi mbaa saful xorom du ngeen ma laaj ku ma fi gis ñu ni ko Abdul Karim koo fi gis mu ni sangub jamono laa fi gis daal leen di ànd ak ki ma gis bu kenn dégguma wuturam cheikhu suyuuxi ahmada kii moo fi tagtal ahmada te di fi tagg muhammada ba mu dugal ko biir këram moo tax képp koo xam ni am nga cër fa yàlla seede nga ni sëñ tubaa mooy waa ji léegi sëñ tubaa àgg na ci yàlla yàlla tegtal ko Seydina Muhammad Cheikh Ibra Fall àgg ci yàlla yàlla tegtal ko Sëñ Tuubaa Ibra Fall moo wax ni adoom yàlla moo yebal Sëñ ngir mu xettali leen yebal ma ngir ma wan nu nuy jariñoo ci moom dafa leer de yàlla moo waxoon Seydina Muhammad ni qul in kuntum tuhibbuna allah fattabiuni bu ko defee nag yuhbibkumullah yonent bi waxal mbindeef yi ni leen bu fekkee bëgg nañu yàlla bëgg leen wala déedéet bu fekkee nee nanu bëgg nañu yàlla ñaar yëpp boo ci jël wax leen yi nan la topp yow sayduna muhammad bu ko defee yuhbibkumullah sëñ Tuubaa moo wax ci làmbinam ni bëgg leen Ibra Faal ngir li ma ko bëgg bëgg leen Ibra Fall ngir bëgg maa bëgg bëgg leen Ibra Fall ngir lim ma bëgg déggoo man la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla waxoon ni gaa yi bu nee bëgg nan ma wala buñ bëggee ma bëgg leen nan la topp sëñ Tuubaa ni bëgg leen Ibra Fall fa qultu yaa xaribu yaa mujibu salli ala alladi bi tujibu waqbal bihi nazmi ya karim وهب لمن به ينادي ما يروم رب بنوخ وبإبراهيم لغفر ذنوب وقف الرجيم وكن بموسى وبجايسى وقيني دنيا وأخرى بوسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله wa bi muhammadin rasulillahi alayhi khayru salawatillahi summa alayhim liyahab imana qad sahaba al islam wal ihsana bi hurmati siddiq wal faruq julliya bil ikhlasi wat tawfiq بحق عثمان حق النورين وبعلي والد السبطين xabliya fi dunyaaya maxu uxraaya annuura wal uluwa wal masaaya bi aqital hada wa bi zubayri wa haqi saadi najni min dayri wa bi saidin wa bni awfi najni min kulli ma axaafu min fitani wa bi abi ubayda tajnilu ma yufid ila janabi waqfi anni ma yubid بحق عبد الله نجل العم أي ولد العباس كسر علمي بحق عبد الله نجل عمر عنك فدابا ما يجر دررا وبابن مسعود وجاه ابن سلام قن البلاء ودر عين وكلام يا ربنا بحرمة العباس وحمزة عنك في كل لباس bi hurmatil hasani wal husayni julliya fi daarayni bin nuurayni bi hurmatil qaasimi summa taahiri safi zawaahiri yamada maa'iri bi hurmatin tayyibi ibrahima adim alayya albishra wattakrima bi jaahi fatimata afti nafsi an kulli ma yajruni li abdi وبرقية وزينبك فيني التردوى الإجابة كل زمني وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجنبني النقم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وكن لي أبدا بجمالك الباحي يعصمني الله الحفيظ للجنان من الأذى وحير نفع بامتنان إلي ينقو ما يسر الحلب وينفع النفس ويكفي تلبا جمال باح لتوجه بلا نهاية وخدمتي تقبلا مسكت بالكتاب ذات لاوة في السر والعنل بالحلاوة ينقاد للمختار في كل لياد jamaalu baaxin li tawajjaha bila nihaayatin wa xidmati taqabala masaktu bil kitaabi daati laawa fi sirri wal alani bil xalaawa yanqaadu lil muxtaaru fi kulli layaad wa xayrahu li yaquudu xaddan xiyaad laa yantaxi suun wala durrun wala saqan li naxwi wal balaa taqawula yanqaadu li ajruka yaa jamiliya الجنان فائزا بسؤليا الحمد لله مجيب ذي الحدر من حسنا فضلا بليلة القدر معزما لسانها في داري حتى عدت خير من الفسار ثم صلاة وسلام أبدا على الذي خير البرية بدا محمد والآل وصحب الكرام مزى فرادا بأفضل المرام هذا وإني اليوم زمت تاري من الكريم كل ما أمطاري يا ربنا بفضل هذه الليلة فسر معائبي واسمع حولتي يا ربنا بفضل هذا اليوم أصلح أموري وأمور قومي يا ربنا بفضلك في كل ما يدرني وللهدى عجلما يا ربنا بيمنح الجنان هب لي وطاهرا لي الجنان يا ربنا بجاه النورين هب لي وللأمة في الدارين واسلك بنا نحج نجاح وفلا وجب قلوبنا لزعد وصلاة وأولنا سعادة تدوم والفضل يا من ملكه يدوم وصليا خير صلاة وسلام على الذي من دوره دار سلام محمد باب الهدى نافردا نائل المدى جالد جامس وردا والآل وصعب ومن لك دعا ما آب بالفوز العظيم من دها تولنا حمرانا سهل لنا قداما وهب لنا رشدا وتوفيق يا الله طويل لنا حمرانا سهل لنا بدانا وهب لنا رشدا وتوفيق يا الله ودا كل داع تدير بينا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا الحاسما من كل مهلكات وناجنا من بلا يا داهيان وافت الغات مخوسة محان زلزالة سدات والفاقية الله إهانة خلات مزلة خلاب وفاقة هتاس والجرح يا وفينة والوابا والعرخ مع خرائق والبرق مع سرق والكادي الله عر وبرد وانا بن كربة نقام دلالة حرج والخمم يا وامة وقاتا يدالة سليل والمسخ والخسف ثم الخسف الله وخولة المخجونة نميلة المرادم ثم الجسامين ونقصانية قراءة ومن فضوح عيما يا الله يا الله يا من على كل شيء إن قادر وحالا عرش عظيم استوى بالقهر يا الله إني سألتك بل خاسعا متواجحا وحلما كثيرا نافعا الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يعدل الله فلا مدل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم كثيرا السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu leen nuyu di leen siyaara waaye di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gi mu nekk guddi gu am a am solo ci képp koo xam ne màggal na ko comme def ko niñ ko defee nii ndax guddi gi am gi mu am solo moo tax sunu borom jagleel ko aw saar ci alxuraan ndax di jàng ci alxuraan suñu boroom di wax ne inna anzalnaahu fii laylatin mubaaraka mu nekk guddi goo xam ne guddi gu barkeel la nga xam ne ci lañuy wàcce alxuraan wax nañ ne ci guddi googu lañu wàcce alxuraan lépp ci bay bay bu ñu bare bu ñu wax bayti maqdis ginnaaw lu jógee foofu nag di wàcce par aaya nga xam ne am gi ma am solo moo tax sunu boroom saar bi nga xam ne siiw na lool mooy inna anzalnaahu fi laylatul xadr wa ma adraka ma laylatul xadr laylatul xadr xayrun min alfi tanazzalu almalaikatu war ruuhu fiha bi isni rabbihim min kulli amr salaamun hiya hatta matlayin fajr nga xam ne saar bi yépp génnal guddi googu nga xam ne boroom xam dañuy wax ne xudrat dafa nekk dayo dayo bu kawee kawe nga xam ne suñu borom daa mel ne da kaa wàcc yónni sama ba pare ba pare ne ko kaay ma wax la nag lan mooy layatu xadar mooy wa maa ko diglee kaa leeral ne wala kaay ma leeral na ba xam lan mooy layatu xadar mu ne ko layatu xadar xayrun min alfi sahr guddi la goo xam ne moo gën junniy weer ndax xam nañ ne yeneen xeet yi nga xam ne ñoo ñoo jiitu yonn salaam salaama ñoom suñu borom dañu naan defal fa ay fan yu gudd lool bu dee ñun yi nga xam ne ñoo ñoo xeetam nag gën ngaa bari daanaka ay juróom-ñett fukk téeméer ku ci am téeméer sax jàmbar nga waaye xeet yooyu nag dañ daan gudd fan lool léegi suñu borom na ne ko donte saw xeet ñu gàtt fan la ñuy doon waaye dinaa la may lenn loo xam ne dama koy def ci guddi gi ci benn guddi boo ko defee rek ñee lonte lañuy guddi lu seen fan gudd ñu def ko ci lu baax ci ab yool genn guddi googu boo tasee moom mu yéen a ñoo yéen a yem wala nga ëppale ko sax kon lay do xadar daye boobu la amee yému ci mu ne tanazalul malaikatu war ruuhu fiha dafa wax ne malaayika yi dañuy wàcc ci guddi googu neneen di ñaanal nit ñi wax nañ ñi ba ma xam wax nañ sax kuñ fekk nga nekk di jàng alxuraan wala jàng xaste wala yu demee noonu dañuy toog sawet di ñaan dañuy toog sawet di wax amin loo wax loo ñaan rek ñu wax amin te ñoom bu ñu waxee amin suñu borom nangu mu ci waaye dane li tax mu mu mu tuddee war rooxum fiiha nga xam ne jibril sax ci malaayka la bokk waaye da dayee bi mu amee moo tax moo tax mu ne jibril sax dañuy wàcc day wàcc ñoom war rooxum fiiha bi isna rabbi ni ko am ñu ne ñëpp dañuy wàcc ci ndégalu seen borom lu ñuy def salaamun hiya hatta mat lañuy fajir ne dañuy dañuy ñaan nit ñi rek jàmm ba kañ ba fajara jot kon dafa nekk guddi goo xam ne guddi ko mata farlu la ci lu baax ak loo xam ne ndax jëmmi weer wi lépp dafa nekk weer woo xam ne weeru promotion la nga xam ne ni ma ko waxee ci bi ñuy commencé xale bi nga xam ne moo fi doon jàng nga xam sa aaya woo la jàng sax suñu boon di wax sax ramadan la si unsi la bi xuraan nga xam ne koon ci weeru weeru kor yi la suñu borom wàcce alxuraan nga xam ne borom xam dañuy wax ne weeru koor yépp dañ koy fukki fan yi ñetti ñetti ñetti fukki dañ koy xaaj daan ne fukki yi njëkk yi ngërëmul yàlla la fukki yi ci digg bi njëggulu yàlla fukki yi nekk yi mujj ñu ne xet xonnaar mooy jot jotu sawara nga xam ne guddi gi lee weer wi moom weer wi lépp moo moo làmboo ay njëriñ waaye nag rawatina fukk yu mujj yi bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bismillahi rahmani rahim waliftah bihi fatan mubinan yaquduni إلى البر والتقوى وجنبني الهجبا ولفتح به فتحا مبينا يقودني إلى البر والتقوى وجنبني الهجبا ولفتح به فتحا مبينا يقودني إلى البر والتقوى وجنبني الهجبا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 أسألك اللهم أن ترى مثل الكتابة بجاه من درى لمثه يتر مع تنفيذ في أبد يا من له المنفوذ قرآنك جعل ربي قلبي وأنه للأخن جلاء ربي رد لي عروف وآفني لكي أناجيا كدربا فيه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 حتى در خيرا من ألف شهر ثم الصلاة والسلام أبدا على الذي خير البرية البدا محمد والآل وصحبه الكرام ما زفر الداعي بإذن المرام هذا وإن اليوم ذو سمتر من الكريم كلما أوتار يا ربنا بفضل هذه الليلة فاستر ما بي واسمع قولتي يا ربنا بفضل هذا اليوم أصلح أموري وأمور قومي يا ربنا بفضلك في كل ما يدرني وللخدج أن سلما يا ربنا بيمني الجنان هب لي وتاخرا لي الجنان يا ربنا بجاي النورين هبلي وللأمة في الدارين واسلك بنا نهج نجاح وفلا وزب قلوبنا لزهد وسلام وأولنا سارة تدوم والفضل يا من ملكه يدوم وصليا خير صلاة وسلام على الذي من دوري دار السلام محمد باب الهدى نافر الردى نايل مدى جالد جامس وردام ولال وصاب ومن لك دام ما باب الفوز العظيم من دام ولال وصاب ومن لك دام ما باب الفوز العظيم من دام اخفض لوجهك الكريم كل من خفيزة الأبيات في كل الزمن ليستجب ربي ووجه في الألن وسر إبليس لخير بولن لك فؤادي إلى إيمان وكل من قصد خير كفان اخفص إلى ظاهري وما بطن من المفاسد والشفيل لتن هب لي دولا فيما كزامن في العالي والمعالي مالك زمن تبارك وتعالى amiin yaa rabbal aalamiin ca yàlla jël na bàyyi soxna waalo woyaadu naa ñi ni bu leen ko wóolu ca yàlla jël na bàyyi soxna waalo woyaadu naa ñi bu leen ko wóolu cey yàlla jël na bàyyi soxna waalo wu yàddu naa ngi bu leen cey yàlla jël na bàyyi soxna waalo wu yàddu naa ngi bu leen